les, les gens du pouvoir on essa on ont essayé d'établir des ponts d'échange avec le guide Serigne Moustapha mais Serigne Moustapha dafa mel ni daal euh, mbir mi intéressé ko trop. dafa dafa dafa taxaw ci position xëy na nguur gi xamuñu kan mooy Serigne Moustapha Serigne Moustapha si ñoom xëy na xamuñu mooy kan. mais am na waxtaan bu commencé am e et que pour le moment am conclure gu leen. et peut-être que boo leen conclure yéen da ngeen di xëy génn yeewu askan bi continuer seen yoon na ngeen defee. <laughs> non mais j'en rigole parce que c'est c'est c'est tellement marrant. mais de la météo. non c'est pas de la météo mu ngi suñu kanam de. c'est qu'en fait li li jar a xam moo ji. doon wax sànq Serigne Moustapha Sy. centre pouvoir Serigne moo jàppale moo taxaw xeex ak Abdou Diouf ba mu jóge fii. jàppale Abdoulaye Wade ba mu falu ba Abdoulaye Wade defee li nga xam ne nii méngoowul ak li ñu waxoon ak askan wi mu jàkkaarloo ak moom bi Macky Sall ñëwee bi mu defee prêter son serment bu pare xam nga lan la Serigne Moustapha wax un premier ministre a été nommé un gouvernement a été constitué mais le poste du président est vacant Serigne Moustapha c'est un visionnaire xam na ne Macky Sall mënul yore Sénégal ni mu ko yoree depuis 2012 ñëpp gis nañ ko. donc du Serigne Moustapha boobu mooy ñëw di créer ay liens ak Macky Sall. non du sëñ Moustapha moo initié lien yi de. kan moo ko initié waaw ñoo initié bëgg bëgg a discuter ak moom. bëgg a négocier ak moom ah c'est leur droit le plus absolu. waxtaan am na waxtaan bu nekk ci suuf. dafa aboutiragul rek kan la ñuy waxtaan am na waxtaan waxtaan bu ñuy jéem waaw dafa aboutiragul. bon il y am nañu yéene pour ñëw ak waxtaan ak waa PUR ak ñu ngi waxtaan. ak waa PUR du benn. am nañu yéene bi. matérialisé nañu yéene bi maintenant est-ce que PUR dina matal seen yéene loolu foofu foofu lañ toll. PUR mënul matal seen ah, yéene. foofu la ñu toll te bu bu ñu te PUR pour euh, euh, pouvoir bi li ñu bëgg mooy PUR jël ses distances euh, avec la coalition de l'opposition. waaye nag pouvoir bi dañoo xamul ne du ñoom ñooy wax waa PUR lu ñuy def le PUR c'est un parti autonome et il faudrait que les Sénégalais le sachent. le parti de l'unité du rassemblement, si ce n'est pas le plus grand parti de l'échiquier politique, il fait partie des deux ou trois partis les plus grands